alors li ñu njëkk def mooy sant yàlla bu baax nga xam ne dañu daje fii tey ñun ñëpp nga xam ne fii ñu fi daje ñiit te ku ci nekk yàlla dafa dogal yow la yàlla def nga ilif fa nga nekk ñoom ñëpp ñu nekkoon ci liggéey bi nga xam ne comme niñ ko xamee président Macky Sall moo ñu ko santoon ñoom ñëpp ñu wàcc dem ci terrain bi di fa lig ko liggéey buñ ko liggéeyee ba nga xam ne yemb na moo taxoon ñu daje fii ñun ñëpp tey nga xam ne waa département bu Kaolack lañ ku nekk ci ñoom ñëw ak li nga xam ne moom nga liggéey ci sa biir commune ak sax ci sa département bi ñu daje fii tey doon ko jébal président Moustapha Niass lu ñu def lu may sant ci yàlla bu baax parce que li muy wane rek mooy mbooleem ñi nga xam ne dañoo jël ay engagement ci kanam président Macky Sall jël ko ci biir parti bi jël ko ci biir coalition bi liñ war a nekk ñu ngi ci ku ñëw fii tey gis ni maire yi ñëwee ak ku nekk ni nga liggéeyee sa liggéey ba mucc ayib nga indi ko teg ko ci loxol président Moustapha Niasse da nga xam ne ñii nekkuñ ne dañuy wax rek di sànni duñ def kon lu may kontaan ci sant ci yàlla bu baax nag parce que nag damay wax toujours ne coalition Benno Bokk Yaakaar ci biir département bi moom ku feebar xañ ne yow yaa feebar waaye coalition bi moom feebarul ndax yi ñi ngi dox képp koo ci xam na tey yaa xeex ba gañe sa commune la nga war a def ci biir coalition bi yaa ngi koy def parrainage yu tey bi loolu la wone daje bitam itam loolu la wone mooy ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk tey bokk suñu région muy région de Kaolack ñoo daje woon fii tey eh, doon jébbal président Moustapha Niass ñoom ñëpp comme niñ ko waxee ku ne gis nga lim indi ñu enregistré ko mu leer nañ président Moustapha Niass it yàlla dogal na fi ñu toog mu résumé lépp ci suñ kanam bind ko commune bu nekk ak maire ba ak lam teewal ci sa commune wala ca biir département ba ci suñ kanam léegi mu yónnee ko ki nga xam ne moo tax ñuy liggéey parce que moo ñu sant pour ñu def waaye biñ defee ba pare tam nañ ko kim ñu santoon kim ñu santoon it rendre na compte ci suñ kanam avant ñuy taxali ko moom li muy wane rek mooy ne moom mi ñëw. naw na xam na ne ñi ay jàmbaar lañ moo tax mu def li mu def xam nga audience boo xam ne jeexagut nga jël sa machine di liggéey loolu li muy wane rek mooy ne car macha allah gàcce ma toujours li may wax mairie département bi kenn mun leen a fay seen engagement yi ci président Macky Sall ak mbooleem coono yi dund nga xam ne lu jafe bi jafe-jafe yëpp teewul ñu ngi taxaw nekk ay góor di xeex ba li nga xam ne dénk nañ leen ko ñu bañ mu yàqu ci seen loxo kon loolu ñu def lu may sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw comme ni ko président Niass waxee léegi li ñu pare ne tey ci région de Kaolack. yaatu na lool kaar macha allah waaye président Moustapha Niass wax na ne tey la liggéey bi tàmbali nañu fexe ba ñun ñëpp li nga xam ne taxaw nañ ci ci parrainage bi ñu fexe ko dem liggéeyi ko li président Moustapha Niass wax léegi président moo ko njëkk wax ca Kaolack loolu rek la ñuy feddaliwaat nañ moytandiku yaana maag maanale la bi loo xam ne jëmewuñu fenn damay wax toujours ne yàlla noppi na ku nekk ci ñun la sama borom nam mu ci yow dana am nañ fexe rafetal ànd bi fexe rafetal jëflante bi fexe rafetal relation yi parce que ñun ñëpp ku ci nekk lan la nga jot ba nga cay jot kenn taag président Macky Sall tàgguwut sa morom daf ko def parce que xam ne jàpp na li yaakaar na ko ci yow mu jox ko ñi nga xam ne amaguñ tam ci nekk ci biir ce nekk ay jàmbaar maa ngi dalal seen xel yi di leen wax ne incha allah wala fi dañuy wax ne lu jot rek yomb te président bi nga xam ne moo ñu ilif xam na lépp xam na lépp te mi ngi suivre lépp te yaakaar naa ne li ñu jaar. war nañoo jox ay leçon ñun ñëpp ci ñu xam ne lu dul jàmm jàmm ko gën parce que tey dañu olof yi dañuy wax ne bala nga naam ne fa président wax na barki démb ci Kaolack ne lépp bu ñu àndee nekk benn gisul dara loo xam ne war nañoo mën a tëll mën a taxaw kanam ku nekk ci ñun na jàpp ne yàlla noppi na ci yow démb tey soog a ñëw loolu buñ ko defee ca gëm ko waxuma nag ñi di ko wax waaye ñu gëm ko di ko dund incha allah yàlla dana def jàmm ca maa ngi yaakaar ne danañ am victoire boo xam ne musuñ koo am parce que tey boo xoolee nit ñi taxawaay am nga xool département bi taxawaay bi ñu am nga xool commune bi tam la fa nekk tey ma jàpp ne su taxawaay yi sellee ñu raxas xol yi muñ lante élection yàggul deux mois moo nekk suñu kanam pour fekk élection maa ngi jàpp ne bu lépp rafetee ñu muñ lente danañ yegg fi ñu jëm incha allah ci jaamu ak salaam région bu Kaolack nag ñëpp comme li may wax wax naa ko barki démb ci Kaolack ñëpp la ñuy gërëm parce que boo xoolee tey département bu ngeen ngi new ñu ngi fii département bu Kaolack kenn waxatul ñu ngi fi am na ñu fi nekkoon génn département bu Nioro la kon région bi yëpp la ñuy wax ne ñëpp a ngi ànd tey ci ndigal gi nga xam ne moom la président Macky Sall joxe ñun ñëpp ñu nekk ci incha allah ba di ñaan yàlla li président Macky Sall bëgg ak lim xalaat ñun ci loolu la ñuy nekk nekkul ci leneen lim ñu digaloon muy parrainage yi def nañ ko ñu ngi toog di ko déglu orientation ordre yi muy joxe rek ñu exécuté ko incha allah taala. ci neuf mille la ñu nekkoon neuf mille la ñu nekkoon ma ne président bu neexee yàlla ba ma waxee affaire bi ma ne ko bu Kaolack jógee di nga gis yaakaar naa ne su ma ko yónnee message bi léegi monsieur le ministre trois cent cinquante et mille quatre cent quarante cinq ku ñu sasoon cent quatre-vingt-onze mille mm-hmm. hmm? léegi tey mu doublé ko de